waaw gannaaw bu vaccine si ame eh, yaakaar bu bari am na ci waaye doom aadama moom moo mel noonu bu ñuy jaaree nii ñeneen jaar na bu ñuy waayee nii ñeneen waxee na li waaye gis nañ ne vaccine bi am na njëriñ njëriñ gi am moo ëppal li moo lore parce bu néew rek la ci lor ñi nga xam ne pengu nañ ci. te ñu ngi amee woon yeneen feebar yoo xam ne pengu bi buñ ko ci boolee duñ ko antan mu yóbbu leen barsax yooyu ay benn benn sax-sax lañ rek waaye li moo ar ci doomu adama moo ëppa di ñaan yàlla mu continuer nit ñi nañ di ñaax nit ñi ne gën a pengu musal seen boppa ci li